fu ñu dem ñu ne tukki na wala na lu dafa am dëj wala dafa am ngénte wala dafa soj dégg nga wala bopp bay metti wante du tere ñu dem foofu léegi yooyu yëpp dinañ ko préparer jëbbal ko conseil constitutionnel ñu xam ne que ñoom ñoo salfaane yoon ñoom ñi waroon fexe mbir mi jaar ci yoon ba yegg ci élection boo xam ne ñëpp ñoo jongante sénégalais yi tànn ki ñu bëgg ñoom ñoo tere loolu mën a am kon bokk jox leen firnde yëpp loolu bu fekkee ne gis nañ ko ah bu ma doon attekat de dinaa ne kii kon dañ koo tere te taguñu ko ci kaw yoon dégg nga ak nu munti mel day bokk ci ña nga xam ne que dañuy bokk ci joŋante bi te conseil constitutionnel bu ko waxee coow day bari wante day bokk kon bokk mu jël ba ci conseil constitutionnel la yi ñuy defar yëpp bu fekkee ne ay pare na ko dañ koy dajale dem jébbal ko conseil constitutionnel. wane ne ñoom ñooy gàllankoor yi